waa asalaamaaleykum si àndandoo Medina TV ñoo ngi leen nuyu di leen tey ñu ngi fii da nga xam ne mooy golf fi nga xam ne fii la Balla dëkk war a ki nga xam ne mooy Bombardier kan le premier janvier tey nag moo tax Medina TV jugee ba Medina ñëw fii nga xam ne mooy golf parce que ne waxtaan ak ñi nga xam ne mooy am di jàmm dëkkandoo xarit wala supporter soo ma gisee nii fii ne ni nga xam ne fii la fii la wàlla Balla Gaye wala solo jëm fee nga xam ne mooy arène nationale ñu dugg si biir xool gaay ak nan la ñu waajalee bés bi. ñoo ngi dolli ziar. waaw maa ngi tudd Ibrahima Sow waaw di magu Balla Gaye mhm. tey nga xam ne ngi jëm fii nga xam ne mooy le premier janvier bëri ki nga xam ne mooy Bombardier maanaam Bombardier daanoon na ko tey mu war a tasante ak bëri euh, ki Bombardier ana naka ngeen ko waajale ah waajal nañ ko bu baax wax dëgg fi yàlla waajal nañ ko bu baax a baax bële ak bii moom bokkul bële bi bëre bee ak bii bokkul boobu moom wéruloon wéruloon mais bii moom mhm. dinañ xam ne bokkul daal combat moom ni mu ko waajalee moom moom ak li mu ko jaral wax dëgg fi yàlla gis nañ ko gis nañ ko daj na cay coono yu bëree bëree bëri lu ñu def lu di ko ñaanal ak yàlla may ko ndam bu sedd guy te incha allah dina tax waaw. aw ceer boo xoolee bàll bu njëkk ak Bombardier yi gis bàll bi tey dangay xam ni macha ki ki Bombardier dajal mu njëkk ak kii moo war dajal samedi du benn. ndax du benn. waaw ndax euh, sunu mbër ku ko xam. xam ni dafa bàyyeekoo fii dem bitim réew liggéey ba am li mu soxla dellusiwaat fii ci Sénégal ànd ak estafam ànd ak papaam ànd ak ay supporteram liggéey loo xam ne doy na sëkk di ki des rek mooy yàlla moo yor ndam di ñaan yàlla sunu borom samedi mu may ñu ndam mais Bombardier daal xam na ni Balla mi mu gis tey macha allah pare na ci côté yëpp moom na ñëw yombal ko joxe boppam jébbalu. Balla daanu ko. waaw combat bi moom wax dëgg yàlla daanaka liñ naan pare nañ daal lañ mën a wax ndax ay combat boo xam ne biñ ko dalee di presque def naat waaw bañ ne ay deux jours a ci def fi mu toll liñ naan jekk nañ daal te it wóorul nañ suñu mbër wax dëgg yàlla. Mhm. wóorul nañ suñu mbër ndax wax dëgg yàlla bu dee liggéey rek liggéey na voilà bu dee liggéey ci fànn bu ne bu dee xeex liggéey na bu dee physique liggéey na bu dee bëre macha allah moom côté boobu ñëpp ko nangul kon daal di ko xaar moom it mu ñëw ci solo mi ñu defal ko comme d'habitude rek waaw defal ko benn tent nii rek yaa ma gën a xam. ban ban façon tent la nga koy def wala. non instant loolu lañ mën a wax. waaw kenn du dem ci làmb ji naan dañu daan ah dañuy dem daan ñëw indi ndam li feete ko géej waaye xam nga comme d'habitude rek comme niñ ko daan defee rek. Mhm. moom daal dañ koy ñaanal rek yàlla may ko wér ba bés ba xam rek mu wane boppam waaw te wax dëgg yàlla. ñun daal wóolu nañ suñu mbër daal macha allah. ndax defet boobu di tax ñu si sant seen borom maanaam dafa am lu mu wane te yaakaar naa ne jamono jooju moom sax bëggul ñu koy wax waaye nag jamono jooju yaakaar naa ku gis Balla Gaye 2 xam ne du woon baala Gaye 2 xëy na am na ay tolof tolof si amoon waaye dañ koy sante seen borom ndax loolu jafewul dafa jafe nga nekk gaynde loolu gaynde rek koy def maanaam nga am tolof tolof wala nga feebar ñëpp xam ne yow mii bi nga duggee si bi ñëpp xam ne ni kii du Balla Gaye dem bëre ji waaw te daanoo fa jël bu ñaaw tamit isa kon loolu sant suñu borom la waaye yàlla dogale nag bii ñëw na si kàttan suñu borom lay doon. waaw Balla Gaye 2 nag voyage du tay du Goulet du Bombardier yaakaar naa ne bokk na si mbër yi njëkk a di génn di ñëw di préparer combat Bombardier nag dañ koo préparer comme ni ñu doon préparer yeneen combat rek xëy na combat yi fa nekk lu ñu ñor ndax dafa ñoo ameel bor voilà dafa bokk lu ñu gën a ñor rek waaye nag ak nu mën a si kàttan suñu borom mooy li ma la wax rek un un lay doon di ñaanal Balla Gaye yàlla may ko ndam bu baax a baax ndax liggéey na lu mu amee ndam ah. waaw bu dee làmb ji moom li mu liggéey liggéey na lu mu amee ndam ndax liggéey na si fulla gis nañ toogul ndakaaru génn na dem liggéeyi ñibbisi na ànd ay mbokkam ay ami jaamam lépp pour préparer le premier te ku ko xam xam ne moom moo moom bis daal fa mën bis voilà kon. man bés bi nag la koy war a gis ngeen combat yi fi jaar ak combat yi fi mujj combat yi fi jaar yëpp ak combat bi nii demagul fenn le premier la yaa ngi dégg coow li fu ne kon nga xam ne loolu si moom la yàllaa koo may waaw di ko ñaanal suñu borom may ko ndam bu baax a baax a baax a baax a baax te gëm nañ si borom dina ko may ndax jikkoom a ngi fi xolam a ngi fi lépp a ngi fi gis nga booy fi nekk ñoo Balla Gaye boo la gisee da nga yaakaar ne ay morom la kër gi noonu la mel ñëpp ci koñ bi noonu la mel ak ñëpp. kon moo tax ñëpp yéene ko jàmm daal di ko ñaanal ndam bu baax a baax a baax a baax a te gëm naa ne dina ko am si kàttan suñu borom yàlla na ko yàlla may si barke sëñ Tuubaa. fu mu jaaroon lay jaaraat ba bañ na ko sax dana naa utal waay. waaw loolu wax la rek xam nga daqaar moom olof yi nee du saf ñaari yoon te boo xoolee nag Bombardier mbër mu retraité la. Balla mooy xale te làmb xale ko moom na yombal boppam rek Balla duma ko daan ko su xeexee ah day ci moom. est-ce que xeex xeex bi dina yomb si Balla Gaye ndax boobu mbaje ñëpp ñëpp xam nañ ko dafa mën a xeex. mais est-ce que xam nga ne yow Balla àddunaam bépp bi mu juddoo ba tey Balla gën a banlieue la léppam mbapat la Balla dafa mën a xeex mbër yi loonu wax ni sunu jàkkaarloog Balla Gaye dañuy xeexak moom kenn ku nekk bañ ci duggee dañ ko rëcc macha allah day ñaan yàlla rek mu lafal ko cat xam naa la ca des sama frère. di kenn ci Balla di Modou Mbuub communicateur TFM moom mën na laa wax kan mooy Balla ndax jaxasoo nag Balla ci lu bari. ni ko buur waxee rek moom yëfi moom jarul muy yàgg euh, te dañuy wax ni nag jaay laalo fa ñuy teye cere waaye diggante Balla ak Bombardier samedi ci ngoon incha allahu rabbi bi ngay ñëwaat incha allah fête victoire bi xam ni Balla moom jël na ndam li ba noppi jarul sax ñuy ñuy bëri. maanaam maanaam maanaam du mystiquement du du du du du du du wàll yu ngeen di xalaat. waaye dafay bëre koo xam ni xale la te mag nag ak xale nag bokkul moom daal bu nu ab arbitre bi sifflé ba nu jàkkaarloo ba balla xool ko ah dana xam ne nag ki mu dajal ndaw la te bu nu songo du yàgg rek balla euh, jaar fa mu daan jaar rek ñu ñu féete victoire bi mu jeex. Euh, amul amul lu muy yàggal. tax pour lan du xeex ak moom nit la comme moom la wax dëgg fa yàlla bu dee doo la ëpp ko. Bombardier mag la bu muy bëre ay eh, Balla buñ la waxee Balla dina bëre ci làmb dañ naan waxoo dëgg wax dëgg fa yàlla eh, pour lan xeex moom dina bëre moom dina xeex moom dina ko daal incha allah rek. nañ combat yu mag yu bëri su ko supporter yàqut àndandoo ñoo koy yàq tey ji en tant que fereeru mbër tey loo loolu lañ si mën a ànd tuuti kàddu. violation yi moom ñun moom wax dëgg fa yàlla bëgguñu ko tey bëgguñu ko suba képp kuy def loolu moom ñun dañ koy ñaawlu. te ku xam géejawaay ñun xamuñ ci violation viol kii yàq wax dëgg fa yàlla waaw li ñuy wax supporter mooy comme waa géejawaay moom ku ne xam na leen ñoom xam la lañu ko grand fi doon mooy t-shirt yi rafet habillement bu rafet sañse ñëw toog ndax kiñ àndal la voilà kiñ àndal la mooy Balla Gaye dé du la teg benn pression moom danaa la yëngalal si kaw mooy yëngal ci suuf yëngala ci kaw mooy yëngal suuf nag ni muy demee ci kaw day sañse lu rafet ñëw toog ci kaw di ko xaar bu dugg si stade ñëpp dañ xam ne dugg si na bu feccee dañ xam ne fecc na bu bëree dañ xam ne bëree na si kaatoon yaa du yàgg waaw daal li ma leen di dégg mooy ànd ak dal ñëw ak yar ndax làmb la tool foo xam ne ñu ñoo ko mën a dimbali te nu ñu koy dimbalee sadio ñu koy yàq duñu wax supporter yi de dañ naan fat si club yi ndax supporter yi mu mel ni ku mel ni kii yoo xam ne ñoo sànc doole sax waaye ba saa da ngay gars yi dina fan si këram bi kon fan si këram dal bii baax comme ni ko fan si këram Balla Gaye dee di ko defee rek sànc sol tise du rafet ñëw stade yëngal si su kaw saa yoo yëngal suuf yàlla may ko ndam jàmm rek incha allah du am benn violence bu dee si côté camp Balla Gaye du am violence ndax moom bëggul koy violence moom bu àndee yow mi nga xam ne yaa koy bungee sax boo naree yëngal bu jàpp sa loxo na la yabal li nga def moom yaa def moom moo koy def te yëngal yëngal bi yëngal yëngal bi mooy ñaari mbër yi jàkkaarloo kon a leen bàyyi ñu defante rek si kàttanu yàlla moom gëm naa ne jàmm la koy am te jàmm sax koy am.